kon ki nga xam ne ba mu oree itam jub googu la ko yàlla xiir jëf yu baax yooyu la ko yàlla xiir siyaadatul xayri loo xam ne daf koy yokk ay jikko yu baax loo jëflante mag nit ñeeg jëflante moog réew maag jëflante doomu aadama yeeg jëflanteem ak ak yàlla diggante moo yàlla yépp loolu moo tudd jub bi nga xam ne moo taxoon ñuy oor su fekkee ne yooyu am nga ko yaa ngi gis ne sa koor gii am na lu bari lu mu yokk ci yow parce que am na jikko sàngam yoo xam ne yaa ngi ko daan def léegi fi nekk ni bàyyi nga ko rus nga yàlla rus euh, léegi diinaam bi nga xam ne moom la la defoon rus li tax mu doon farataal ci yow koor ba léegi delluwuloo ca waaye gis nga ne koor gi bon léegi kooka mooy ki nga xam ne daal dinañ jàpp ne kii yàlla nangu na kooram kii yàlla nangu kooram daal moom ci boppam moo koy xamal boppam mooy gis ne suma koor gii ma doon koor jëriñ na ma nangam parce que maa ngi daan def nangam nangam léegi defatuma ko mu ngi gis ne koor gi ci weeru koor bi laa commencé woon di def nangam loo xam ne lu baax la moo xam ca naafile ya la moo xam ca wax ya la moo xam ca dem ya la moo xam ca melokaan ya la lépp loo xam ne gis na ne ci koor gi laa ko amee ci lu baax bon na xam ne léegi bon koor googa am na njëriñ ci moom loo xam ne gis na ne wàññiwu dara ci suma koor musul ma defa defal ma dara ci koor bon xam ne ne koor googu bon amalul ko benn njëriñ parce que yii moo mu faj ko jikko yi nga xam ne dafa nekk te doomu aadama saxoog moom ànd ak moom moo taxoon léegi muy koor nga xam ne léegi ay fen tappale naafeq yooyu yëpp nga xam ne jikko yu bon la kañaan wax ju ñaaw yii yëpp fexe na ba génnee ko ci xelam génnee ko ci xolam génnee ko ci xelaatam génne ko ci jëflanteem moo kum mun di doon su ko defee kooku mooy wax ne léegi man suma koor bi nangu nañ ko foofu nga koy xamee waaye boo gisee itam kii nga xam ne léegi moom nam daan def dafa raw sax lam daan def lam daan wax dafa raw sax loo xam ne moom lay waxaat nga xam ne bon kii kooragul rek koor gi nga xam ne moom lañ soxla noo ko noonu wala maa nga ñëw ci koor sax maa ngi lay wax ci julli ba pare julli itam comme niñ la ko waxee woon ne inna salaata tanha anil fahsha'i wal munkar da nga gis ne ki xam ne ay jullim ak naafile yi nga xam ne moom laa fi tuddoon yëpp nga xam ne da nga ba mu nekk fifty rakka ci benn bés nga def ko naafile yooyu la muy jëriñ mooy ñu gis kii jikkoom bi soppeeku ñu gis yaram ñu gis nekkam ak doxalinam yëpp ñu gis ne ciiñ ne ba nga xam ne da gis ne kii ku yaru la ku ragal yàlla la waaye bu fekkee ne gis nga ne nit ki mu ngi kër kër yi di jullee yow waaye léegi terewu koo def dara lu ñaaw terewu koo bàyyi dara loo xam ne lu lu ñaaw la moo xam waxee la moo xam jëfee la bon na ngay xam ne kii julleegul rek parce que bu julli woon dootul mun a def dara loo xam ne lu ñaaw la ndax yàlla moo ñu ko dig moo nañu ina salaata tanha anil fahshaay wal munkar julli dafay effacer lu bon julli dafay fekk sax yow yaa ngi amoon ay yu bon yu bari nga tuub dugg ci islaam ba nga duggee ci islam commencé di julli julli di raxas yooyu ba nga xam ne fi nekk nii nekk nga koo xam ne dafa nga seet wecc ci bépp bàkkaar jub dafa mel ni indi loolu ragal ala moo moo indi loolu ragal yàlla boobu yàlla toppatoo ko ñun ba di ñu wax ne sax am na ñoo xam yu bari bañ amee bàkkaar yu bari yooyu man fi mu nekk dama leen bakari seen bàkkaar yi nga xam ne defoon nañ ko ma jéggal leen yi yëpp ma jéggal leen ko waaye amna ñeneen ñoo xam ne ñoo gën a sax parce que yàlla dafa wax ne gis nga seen bàkkaar ya dañ leen ko jéggal ba pare fabaat ko nag bakkaar yi nga xam ne noonu la toll woon ñu fabaat ko ba pare defal leen ko ay tiyaabo defal leen ko ay jëf yu baax nag léegi jox leen ko léegi nag boo seetloo ki nga xam ne da ko leb bor mu ñëw ne la baalal naa la bor bi kooku neex na parce que léegi bor ba doo dootoo ko fayati balal na la ko waaye ki nga xam ne moom da ko leboon bor bor bii mu ñëw baal la ko ba pare tegal la fa loo xam ne mu ngi am ni bor bi mu joxaat la ko dool la ko ca loola ba pare jéggal la bor ba kooku moo gën a dàqaleeti euh, wala moo gën a neexle naka noonu itam jaamu yàlla yi yëpp noonu la li may waxoon ne wa fi anfusikum afala taqiloon ci seen bopp boofa mel ni lépp looy gis itam da koy gis ci suñ jëflante yi nii rek suñ jëflante yi ñun doomu aadama ci la lépp a nekk ci ngay jàngee sa bopp ci ngay jàngee yàlla ci ngay jàngee nit ñi ci ñaari xaaj yi nga xam ne maa ngi ko doon tudd ne léegi mooy ñaari xaaju islaam yi jëflante boobu benn part la ci moom jëflante sa digganteeg nit ñi sa digganteeg sa réew sa digganteeg say bokka sa digganteeg sa société bi nga xam ne ci ngay dunda yooyu yëpp daf ca bokka ca yooyu yëpp nag mooy bépp loo xam ne moom la nit ki di jëf wala lépp loo xam ne moom lay wax lépp lu muy jëf mooy li aju ci loxoom yi nga xam ne moom lay xëy def nii wala mu aju ci tànkam yi nga xam ne dafay dem fa dafa dafa xëy dem fa wala dafa dox dem foofa moo xam doxin ba lu mu mun a doon waxuñ sax ci na ngay seq ay tànk nii rek waaye na fa mun a demee waruwaay bu mun di doon itam loolu dem la rek dem bi moom lañ fa am solo bu ko mm, bon yooyu bu fekkee fóotu na ci nit ki ba mu set wecc mu indil ko ay jikko yu rafet ba nga xam ne léegi ku ko gis xam ne kii ku ragal yàlla la loolu moo taxoon ñu doon koor su fekkee ne nag loolu gis nga ne gannaaw koor gi yow yàlla mu ngi la xiir ci yooyu defal la yoo xam ne yii fooguloo ko woon wala génne la jikko yoo xam ne léegi lii nii mu ngi kare woon ci yow mu ngi nekkoon ci yow waaye lii sa koor gi tax na nga bàyyi loolu yépp fi mu nekk jublu ci yàlla bon bon na nga xam ne bon suma koor gii ma koor nangu nañ ko suma julli gii ma julli itam nangu nañ ko suma jaamu yàlla bii nga xam ne jaamu naa ko mu tam nangu nañ ko jaamu yàlla daal amul ci benn boo xam ne duul ne dafa am lu tax yàlla teg ko boo demee ci julli boo demee ci oor boo demee ci génne asaka boo demee ci lu mu di doon rek lii mooy tax yàlla teg ko li tax yàlla teg ko nag yow su paasee nga gis ne loola yàlla ak la ca xiir yàlla ak la ko defal di nga mun a waxal sa bopp ne léegi bon man suma jaamu gii nangu nañ ko waaye feeg loolu amul rek jàppal ne man jaamoo gu ma yàlla parce que su ma jaamoo yàlla jaamu gii mu wax ma bon lii mu waxoon ca jaamu yàlla ga loolu itam dina ma ko defal ñu ñuy wan ne waxtu wi jeex tak ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ñaanal réew mi yal fi yàlla def jàmm yal nañu yàlla defal ay weeru koor yu bari weeru koor bi na ko yàlla delloo si lépp loo xam ne jaamu nañ ko fa yàlla yal yàlla nangu na ko yàlla def lépp loo xam ne moom la weeru koor di jëriñ yal nañu ko jëriñ lépp loo xam ne moom la weeru koor di tere moom la weeru koor di dawloo nit ñi yal nañu ko yàlla suriloo yal nañu ko yàlla dawloo wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë القرآن والفرحان الولاية ما ختم النبوة جده والهاني والمجمع البحرين شيخي مجمع البحرين عين عناية بوراثة من منة الرحمن وتواترت رتب له من بعد ما رتب بلا أثر ولا كتمان وأحمد بن محمد نجل المؤثر نجل الجد مددان شيخي que ela está com a razão. Seize the day. Seize the day. A compelling blend of drama, passion, and misery. Luciana is young, beautiful, and rich. Her moments of fun are never-ending. But a close look reveals an insensitive and envious girl. Being a spoiled model, Luciana's envy of supermodel Helena extends beyond the catwalk. <gasps> Are you okay? Get away from me. You must be happy with what happened. It's a curse. You've cast a curse on me. Oh my God. Helena Mitz falls in love and marries Luciana's father, Marcus. Dad? I just can't believe it. I'm starting to think this is a trap. Oh, look! The young lady is walking into the lion's den and thinks she's in a church. I didn't know he was your father. Can you hear me? Get out, or else I will run over you! Run over you! I want to see that. Luciana's selfish life is the synthesis of everyone around her.